marathon budgétaire bi moom deux phases la euh, parce que première phase bi moo nekkoon euh, commission yi euh, vote bi nga xamante ne si ne waa commission finance ñu ngi ko doon voté di jàllale budget yi wax dëgg yàlla ça s'est bien passé ministre yi ñëw nañ benn par benn étudier nañ documents yi bi ñu paree aussi ñëw nañ ci marathon budgétaire bi euh, pour le moment aussi wax dëgg yàlla ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi daal. waaw boo gisee euh, ñun budget bi bi ñu ko xoolee ñu ngi ko xayma ci mu toll ci six mille quatre cent milliards. mais boo xoolee euh, ñun député Yewwi Askan Wi li tax ñu boycotté ko mooy budget bi ñu dañu xam dañu gis ne daal jëmale wuñ ko ci askan wi ndax boo xoolee lii di ay industrie ay pêche nga xamante ne si ne ak yeneen yeneen nga xam moo. représenté suñu secteur primaire bi dañ ko fa dañ ko favoriser wul boo xoolee tamit am na ay institutions yoo xam ne lu ci mel ni présidence de la république ñu ngi ko alloué budget bu 71 milliards te xum te ku ne xam na ne loolu c'est destiné à des fonds politique euh, lu ci mel ne au conseil des collectivités territoriales ak euh, conseil économique et social bu ñu ko xaymaa seen budget mi ngi toll ci 16 milliards te loolu yaakaar naa ne ku ne xam na ne euh, ce sont des structures Euh, des institutions purement politique amaloon benn njariñ askan wi te gis nga ne ku ne xam na ne Sénégal fu mu toll gis nga euh, euh, njàngale njàngale meeg njàngale ma ngaay mi ngi nii ni paralysé wu abri abri provisoire yaa ngi lëmbe école yi boo demee Tanaff à Tanaff dans le département de Goudomp on parle d'abri provisoire amélioré te loolu moo am ci moo am ci suñu jeune Kébémer bee boo demee Kébémer benn commune euh, bu ñuy wax Colom Fall euh, boo demee ca école élémentaire ba yaa a des salles de classe euh, faites à base de paille et de palissade te loolu aussi moo am ci Ranérou Ferlo bi moo am ci Ranérou Kanel moo am ci Sédhiou fépp foo foo dem rek yaa ngi fa gis abri provisoire yi xale yaa ngi fi amatuñu ay support pédagogique ñu ngi wax approche par les compétences amuñu ay bloc scientifique yu doy xale yi amuñu ay livre ñun enseignants yi aussi amatuñu enseignants yaa ngi fi amuñu ay support pédagogique yaa ngi dégg ñuy grève ndax problème mu salaire bu ñu signé ay accord duñ ko respecté euh, baykat yaa ngi ci àll bi am jafe-jafey semence am jafe-jafey engrais euh, insécurité baa ngi lëmbe dëkk bi kenn ñemeetu dox yenn heures yi yaa ngi tiit ñu lay foot yaa ngi dégg ay meurtre ay agression yenn heures yi kenn ñemeetu ko dox jigéen ñaa ngi fi ndaw ñaa ngi fi jàng ba pare jël seen ay diplôme rangé ko ci tiroir yi amuñum xëy ñii di jël gaal yi di dem ñii toog ci kër yi te dara waralu ko rek lu dul mal gouvernance dund baa ngi nii cher bay bëgg dee ñun ñi lekk ñu naanuñu trois repas yi sax am na ñoo xam ne matalutuñ ko ndax vie bu cher da ngay jël sa pochette dem marché def ci xaalis boo demee li ngay jënd du xaaj bay mat ndax lépp a yokk lépp a cher waaw léegi nag dañu xalaat dañu xool daal budget bi wax dëgg yàlla jëmale ko ci askan wi ndax daal y des institutions yoo xam ne dañ ko fi war a jëlee milliards yooru ñu milliards yooyu ñu jëmale ko ci askan wi vraiment. waaw man su ma jëlee sama département moom di Kébémer ku ne xam na ne Kébé maanaam infrastructure sax Sénégal fépp laay wax ndax euh, ndax euh, bu ñu jël rek yaakaar ne euh, la vie se limite à Diamniadio ndax boo xoolee ñoom seen nouvelle. réalisation yëpp dañ ko yemale foofu alors que bu fekkee dañu jël yëpp euh, focaliser wu ko ci jam ñaajo du ñu gis ay femmes yoo xamante ne si ne dañuy accoucher ci charrette yi te dara waralu ko lu dul manqué ay tali ak ay moyens de transport yu leen war a jàllale foo dem ñun ñaa ngi am ay jafe-jafe ambulance te ministre bi yore wàllum infrastructure aussi moo yore wàllum transport ñun su ma jëlee suñu département de Kébémer bi c'est le dé il fait partie des département les plus pauvres en matière d'infrastructure su ma jëlee sama commune di Daaru Moussi depuis temps Senghor ñaari tali ñoo fa am te dañ faa jaar jàll y a pas de route secondaire màggal Daaru Moussi da ngay gis oto yi duñ mën a dugg si ñii di canki suuf si ñii di paan te loolu aussi moo am ci commune yëpp moo am Colom Fall moo am Sagata moo am Loora moo am Bandeñ moo am Géwul moo am Jokkul pratiquement 19 communes yëpp dañu am jafe-jafe moo am ca dandemaay ba ca Fuuta Tooro ndax euh, Fuuta tamit kanel biir kanel amul ay route secondaire dandemaayoo bi euh, Ila Touba bi nga xamante ne si ne moom moo jógee Touba Mbacké jaar Ranérou jaar kanel jaar Sinthiou ba maam bi Amadou Unaare bu demee ba Unaare di boo wàccee euh, yaa ngi dugg si dandemaayoo bi foofu yëpp yëpp yëpp amul tali ay càngool la fa nekk ay yoon yu métti nit ñi di yëg ci charrette di yëg ci moto di daanu oto sax mënu fa accéder kon nag loolu il faut ñu wax ko ndax ñu nu sommes des députés du peuple te loolu aussi moo am ci Ranérou Ferlo moo am ci Ranérou ba euh, bu Kanel bi moo am ci sud bi nit ñi daal sonn nañ ministre bi nga xam ne moo yore wàll wii nañuy wàcc dugg ci àll bi dugg jël seen oto dugg ci euh, di jaar ci yoon yi nga xamante ne si ne vraiment dafa metti yaakaar naa ne Dakar gi donc su ma jëlee yi tamit ku ne gis na ne tali Caaroy bi ni mu ni mu mel diggante Caaroy ak Yëmbal man nga fee def presque trois heures de temps ndax tali bu bon yaa de tout euh, à tout moment yaa ngi fay dégg ay choc askan wi daal dañoo sonn ñun nag nous sommes de députés du peuple nous sommes élus par le peuple et pour le peuple nous allons défendre dignement les intérêts du peuple